bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashraf alambiya walmursalin wa ala alihi wa sahbi qadima mati ajmain assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu mbokk julli yëpp ak fi mën a nekk di leen ziare rawatina suñu mbokki taalibe murid yi di leen ndokkeel ci xeexab mag bi nga xam dañ koy jublu di ndokkeel cheikh Mouhamadou Mountakha xafisahullah wara tawfiix ji nga xam ne su moom defal la ko ko ba naan lu am solo wi nga xam ne sëriñ bi fa bàyyi woon te ay waajuram tàmmaloon ko mu sotti ci loxoom ñu koy ndokkeel ci loolu di ko ñaanal su moroom tëb ko kattan ak wér ak gudd fan ba lim ci yéene lépp mu teg ci wetam te lépp ñu ànd koog moom ndax ku xam na ne sëriñ bi radiallahu anhu itam yëpp moo nekkoon diin ak xam-xam añu wa diin mosa itoo du moom dun gépp ci la ko jeexal ku ci la leer moom la moom it bàyyi te ku xam ne bokk ci mi bi yi gën a mag yu bàyyi woon mooy daara ju mag joo xam ne lépp lu ay soxlaa ci xam-xam waxuma di ko jéggi waaye dañ ko fiy jéggi si daara ji nag ci xalaatu Cheikh Mouhamadou Mountakha yaakaar naa ne bu yàlla feexe ba programme yi nga xam moom ci tëral sotti waxuma di fi jógeeti di jàng waaye réew mu nekk ci àdduna bi dañ fa di jàng si ak xam-xam yu mu mën doon kon loolu xalaatam la njàmbaaram la fitam la gëm sañ tuwaal ak fa seen ko liggéeyal dakk ak bëggam la war suñu borom tam fexe ko ci loolu ba tax daara ji mel ni mel ak yeneen sémb yoo xam ne sémb ci daara ji yoo xam ne ñu ci kanam incha yoo xam ne yàlla na ko ñaanu suñu borom mu àggal lépp xam naa di ñaanal te mbokki taalibe murid yi nga xam ne yëpp am nañ ko moom te rafetlu xalaat bi di def seeni i ñaq ba mu sotti ñu dugal ci seen gone ñaan tam ñu ñu ñu bañ a teg seen laxasaay rek jàppale ko ci liggéey bi ba ndax liggéey la boo xam ne du sotti mukk day dem rek ba abadan bu mu toll rek mu ngi aajo loxo di ci loxo loxo di ci dem ñu ngi soññaat bu baax rek tal bi mbokk murid loo xam ne liggéey baa ngoog duñu wax ne kon sotti na waaye dañuy wax ne léegi liggéey bi door door a ndax ku ne xam na ne daa yu toll ne saytu ko du caaxaan waaw moom ku day wax ne ku ku ku di yoon tam xam nga lu bopp attan daal jeen ne mu toll ku sembu xam nga ne xam nga ne sëñ Tuubaa tëlu tëluwul dara lépp ngi ci waxee murid yi te murid yi mën nañ cee def lépp ndax euh, woowu fit ak boppa parce que sëñ bi moo mën a sembu sembu toll ne kon ni soñ baax mbokk taalibe murid yi di wax ne kon liggéey bi daanaka day door a door lépp lu waay defoon benn na fexe ba muy fukk ndax liggéey la boo xam ne li laaj daa bari lool ku ne xam na ne université du caaxaan état moo ko daan yor waaye sëriñ bi nag moom defe naa moo raw état ndax su tabaarkalla suñu xaalixiin su am jox na docteur bi ay xewal te jox leen xol yoo xam ne liggéey sëriñ bi lañ ci bëgg. ko ñu ñaanal mbokki murid taalibe murid yëpp su borom tëbb leen kàttan ba nañ bëgg yéene seen yëpp ñu def ko yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha bokkam yu baax yi koy jàppale ci liggéey bi ba liñ ne lépp ñu teg seen bët ci ala hasab ma yaram barka Cheikh Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi